Amadou Ba sera le, le prochain président de la République bu Sénégal te comme man d'accorduma ci lool kon jarul ngeen fay dem waaw waaw jarul ngeen fay dem ñu ni ma militant yi ñooy tax sax ñuy dem yaa ah, waaw xanaa bu dee loolu waaw ba defee kon nag nit daal bu la faalewu da toog di ko xool waaw nii rek la demee waaw nag ñoom wut nañ seen président ba noppi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 incha allah waaw parce que font baaxul waaw te ren incha allah ku fi sàcc élection dootoo ko def ba abadan waaw man waa la ko wax waaw taalibe yi kenn du seen ma son am nag Senghor ma son na sàcc élection ya mu defoon nag Serigne Cheikh Serigne Cheikh gagné ko mu sàcc élection yi waaw mais bii yoon wa saariqu wa saariqatu moom uh-huh. waaw waaw waaw du demee noonu waaw boo rekk ñu def mu jaar yoon ah, bu jaarul yoon it ñu jaar yoon rek waaw ñi rek la demee waaw xam naa dinañ waaw kii moom lu mu xew la tey waaw waaye fekk na rek dama xam ni bu ma waxul dina am gor yu dul nelaw ñi sonn ci Sénégal dañu bare te am na ñu nga xam ne xamuñu fu ñu jëm ne xam ngeen ni ñii di dugg ci gaal yi di dee ci ndox mi ndax bëgg a génn réew mi dem feneen loolu lu ko jar loolu c'est trop c'est ndax réew mu doy waar ñuy nax nit ñi rek yu kenn xamul di jël ay milliards di ko yàqate ñu nekk fii di foye nit ñi rek waaw yu kenn xamul dem di jënd ay bonbon ah te jumaa nii tekk kenn mënu kugoo yeggale ah ñuy nax nit ñi ni li ci des barewul te fekk onze milliards et quelque la ko defee nañ bàyyi foy te jublu ci dëgg jublu yi ci li ñu xam ñu xam ko li jaadu jaadu parce que itam Niger warul ëpp fayda ci fii la France doon nekk di yëngali loxo naan day écraser junte euh, militaire bi nekk euh, Niger ndax seen ambassadeur du ambassadeur baa nga ne par force woon nañ ko pour mu dem ñibbi France ah parce que font baaxul font baaxul ñun ñooñu ñooñu ëpp fulla te ñooñu ëpp fayda waaw parce que ñun ku ñu jox cere baasi salte rek ñu génn ci li ñu nekkoon te loolu baaxul loolu baaxul na ngeen am fayda nag ta ngeen taxu waaw